la sifflé mbokk yi combat boo xamante ne combat xale la combat bu nar a neex dox ci diggante Zoss ak Léopold ndaysaan Zoss moo la woon ginnaaw tent bopp bi Léopold nga jàkkaar lool ndaysaan Léopold sax ma protestant bi avertissement pour Zoss arbitre bi mu ngi leen di laaj entraîneur bi toogagul ci siège bi fii ak toogagul arbitre bi du sifflé toog na arbitre bi dina sifflé sifflé na mbokk yi Zoss ak Léopold Zoss moo la woon ginnaaw jiital tànk ndijoor Léopold war na kanam moom nga jàkkaar lool mu jiital tànk càmmoñ ndaysaan Zoss Léopold mbokk yi Léopold moom nga jàkkaar lool noonu ndaysaan Zoss nga jàkk war ginnaaw tey sama gars yi dañuy ñëw rek di la laaj kuy bëree kuy bëree kuy bëree ba daal gars yi jaaxal nañu ma. ndeysaan des fois nekk ci alal nga nekk ci bu neex ñu ñëw dóor na ko mbaa dóor mu daanu doom Zoss dóor na Léopold Zoss dóor na Léopold Léopold Zoss dina gaaw ndeysaan Léopold Zoss Léopold Zoss ndeysaan combat bu nar a gaaw Léopold Zoss jokkaas na ndeysaan Léopold ak Zoss Zoss daw na jëli ko daje naa coup bi Léopold du ragal waaye Zoss mën na xeex loxo yi ñaar ñëpp ay dox Zoss mii ah nañ xool fu muy mujjee ak Léopold Léopold bi na xaw ma ban Léopold la ndeysaan Léopold André Sarr wala Léopold Sédar Senghor wala ban Léopold ndeysaan ma nga noonu Léopold ak Zos Léopold Zos ndeysaan Zos arrière na nee na ko kaay ci géew bi nee na ko foo ma woo ma wuy la Léopold Zos Zoss écurie Diamaguène Sicap Mbao la nekk Léopold écurie Rebeuss la nekk mënul yomb ñoom ñaar Léopold Zoss ndaysaan Diamaguène Sicap Mbao ak Rebeuss Léopold Zoss ndaysaan Léopold Zoss ñoom ñaar a ngi noonu Léopold Zoss ma ngay dóor ci suuf ndeysaan ma ngay dóor dóor ak Jos Jos a ngay dóor ci suuf ay rokas Jos a ngay rokas Léopold Jos ndeysaan Léopold ak Jos Léopold ak Jos Léopold ak Jos noonu ndeysaan ak Jos Léopold Jos Jos a ngi dóor ci Jos a ngi dóor ci suuf laa ilaaha illallaah waxoon naa la Léopold na Jos Léopold daan na Jos daanu nga jël bu la bett waay ay la ëmbal daan na sas waay daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy alay ah, siar père ndeysaan ma deuxième combat doo victoire mo boy da nga bànni waaw gis nga moo loolu effectivement damaa gis mu woo la ci xeex man sonn. waaw mais saa yu la woo ci xeex dama koy wan ni carrément damaa bëgg a xeex yow te bu nekkee bëri bi nga gën a mën. waaw waaw waaw. waa xam nga rek gars yi ñoo may conseil na ma bëre lii boo bëre lii yàlla mën naa ànd ak yow. barki Serigne Fallou. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama deuxième combat doo victoire. noo ko daane. dama koo xëj dama bàyyi ba mu rokos ma ma ñaar ñaari ngem maa ngi am ngem muy door ci suuf dama xëj rek mu ñëw ma laa ko caaba weeru ko. tànk ko day jaaxaan. waaw écrit yi jàmm ngay génn foofu wala dangay dugaat. damay ma jox Liss Ndiago. non Liss bi nañ ma ko jox. Rebeuss jaama gën la nañ ma jox Ndiago bi. non kooku comédien la du mbër nañ ma jox Liss. war na yàlla du mbër comédien la. nañ ma jox Liss. mag gi na ma jël maa ngi nii. waaw pare naa. rajo Tom Ndeye.